mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fes ci xibaar yi daal di koy dooree ak wàllum politique ginnaaw Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag ci ayu bis ba ñu génn daal di nay yëkkati micro RTS 1 daal ne nañ ko ko génneel tegal ko ko nale ginnaaw ba muy amal ab campagne am ñeel élection législative ya nga xamante ne dëgmal nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru juillet gi la ñu nekk doxalin woowee nag mu daal di doxaluy Ousmane Sonko njiital Pastef te bokk ci coalition Yewwi Askan bi daal dina ciy dellu siwaat li waral mu daal doxalee doxalin wu ni mel muy xamle nag daal di ne télévision RTS loolee askan wi yëpp ñoo ko daal di bokk ku ci nekk war nga caa daal di mën a gis sa bopp waaye nag la muy naqarlu ca waxtu woowee muy xamle ni dañuy jël atub yi lëmm daal di koy jagleel njiitu réew mi président de la république Macky Sall ginnaaw bu mu xamee ni nag ne bu élection de jege si ñu daal di may ñi fare ci ku jegi ku ci nekk cinq minutes temps d'antenne te loolee motu leen dara mu daal di génnee micro ba daal di koy teggee na le yemu ca sax moom mu daal di dellu siwaat nag ci jëf joojee li tax mu daal di koy jëf mu ngay xam ne sax daal di ne RTS googee nga xamante ne nag ñu ngay waaj a tabax ab benn building nañu xamante ne nag lépp loo xamante ni rek xaalis mu nga fay dugg xaalis boobee ñun sénégalais ñoo ko daal di moom ndaxte nag suñu ay impôt la ñu daal di yëkkati daal di koy jël koppar googee daal di koy dugal ca RTS kon nag sénégalais bu ci nekk rek war na cee daal di mën a gis boppam sax moom mu ngay annoncé daal di ne ci ayu bis bi la ñu daal di dugg si dina génnee ab benn liste liste boo xamante ni nag nee na ay télé ak i rajo yoo xamante ni nag ay këru taskatu xibaar la te njiitu réew mi daal di leen di jënd maanaam daal di leen di ger ba nga xamante ni rek ñii di opposition bi amuñu fa la nga xamante ni nag moom moo di accès wala seeni activité kenn du ko wane loolee nag mu daal list liste boobee boo moytuwul dana ko daal di publier te loolee lépp nag ki nga xamante ni moom moo di maire bu Ziguinchor daal di jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di sympathisants yi daal di yëkkati yooyu le kàddu ginnaaw bi loolee nag jàppale ni kii di Ousmane Sonko la muy naqarlu ba tey bokk na ci RTS googee nga xamante ne nee na dañaa topp ci ginnaaw njiitu réew mi président Macky Sall di ko xalamal di wane nag chantier nga xamante ne moom lay daal di def waaye tamit daal di toog lépp loo xamante ne dund gu seer la ak askan wi la ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe loolee ko wane benn yoon ne mbir moom